asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi seetaan Dakar ma di ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amaan métier kontaan te jàkkaarloog yéen fii tey nag ñu dalal fi benn ndaanaan xale bu am jom xale bu am talent xam naa ne bu ma waxee turam du ngeen ko xam mais ma bàyyi leen ñu découvrir ndoo ko dani nuyu naa la. maa ngi lay sant bu baax Eva j'espère que yaa ngi am jaamu ji wër. Euh, ñu bàyyi la nga nuyu suñu mbokk internet yi seetaan Dakar Midi. d'accord maa ngi nuyu ah, ñëpp ku si nekk sa tur sa sant yéen ñi euh, faraloo di seetaan Dakar midi tey nag waaw man lañu invité maay gan bi tey je m'appelle Dan Abraham Jacques samba Sène voilà. Euh, Dany bu ñu bëggoon xam tey kuy Dany wala ñu laaj la kan mooy Dany loo ñuy tontu. waaw Dany nag séeréer la ah, sénégalais aussi dëkk euh, village bi ñuy wax Njagañaaw foofu mooy sama originaire mais maa ngi fi depuis deux mille quinze seize ay si à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar di fi jàngee ba tey daal waaw. Euh, dani ñu gis la nga yëngu si lu bëri bari bëri bëri gis nañ ne dani day jàng ñu gis ne dani mu ngi yëngu si TikTok bi ak leneen ak leneen yow dani buñ la bëggoon xam sa sa niveau d'étude fan la toll. waaw man nag maa ngi en master master laa nekk 2016 la fi ñëw d'accord donc ça fait six ans maa ngi université voilà loolu c'est vrai que maa ngi si yu bëri mais lool noonu yëpp waaw ndaw buy wër boppam la rek waaw di jeex rek fu baax rek ñi ngi fa daal ci lu baax rek ci la ñu nekk daal di waaw di ci dox. Euh, dani ñu gis nga nekk si TikTok bi yow lan moo la dugg si TikTok te nga nekk en tant qu'élève. waaw dëgg la nag bon TikTok bi euh, dafa nekk tey loo xamante ne c'est incontournable réseau social la boo xamante ne euh, mën nañ ni daan na Facebook daan na ay réseau yu bëri ndaw yeeg mag yi ñëpp ci la ñuy fréquenter. waaw donc am na tamit ay catégories yu bëri bon ñun tamit ñu gis ci suñu catégorie gis ci tamit suñu bopp ñaaw ñu daal di ci dugg investir aussi rek waaw. daal di jël suñu yoon euh, ci TikTok bi daal di ci liggéey bu baax a baax a baax di ci sant yàlla loolu moo gën a tax ñu dugg te eh, dañu gis nañ la yaa ngi TikTok yaa ngi def buzz est-ce que TikTok bi yaa ngi siy am dara. waaw TikTok bi nag bon fayagul fii en Afrique maam TikTok ci boppam mi ngi renu mi ngi rémunéré en Europe mais fii fayagul mais man ci wàllu bi ma nekk ci catégorie bi ma nekk coaching laay def waaw coaching en matière de développement personnel ak aussi en matière de sentiment maanaam couple yi mariage et tout ça bu fekkee coaching privé bi nag waaw mi ngi may fay de sant yàlla bu baax. léegi yow ñu gis xam nga Sénégal TikTok yow TikTokers yi bëri na fi ñu gis ñu bëri bi la ñuy dugg moo tax yow nga préféré moo tax la moo la poussé nga au lieu tu te sen lan moo tax intéressé woo si côté comédie bi nga intéressé wu si côté costing kii coaching xale jigéen. waaw loolu dëgg la bon comme nuñ koy waxee rek ñëpp mënuñu defandoo la même chose et honnêtement bon xam naa bon nit ku xumula mais affaire comédie nekkul sama mbir trop trop. affaire coaching nag li tax ma dugg ci tey jii nii di soñu xale yu jigéen ñi c'est juste que je me je vois xale yu jigéen ñi comme ma par exemple comme sama yaay comme sama tante et cetera et te wala bi may gën a tey nii di wax mooy wàllu dignité wàllu fulla ak fayda ci relation tamit ma ciy wax c'est juste parce que la femme elle est naturellement faible. te yàlla ñun la def tey jii ñuy ñuy fi fil arde ñu ko ñu représenté ko fii yàlla ñun la jox tey jii ni kàddu donc yoon la aussi ku si nekk rek sa xalaat waaw nga wax ko du yoon ni que dañu gën a dañu gën nit ñi ou bien dañ leen gën a parfait mais juste dañuy wax suñu xalaat pour soññ suñu rakk yi sonn suñu yaay suñu tante yi et pour ñu gën góor góorgóorlu xam ni jigéen mooy usine yàlla jigéen moom la yàlla sargal jigéen moom mooy jur yonent mooy jur lu ne donc yoon la ñu sànni si suñuy kàddu waxtaan ak ñoom voilà dolli leen xalaat daal loolu moo waral le le plus ma concentré wu sur ce sur ce lancé sur cette lancée là et catégorie coaching bi may def ci wàllu développement personnel tamit euh, mu toll tey jii nii ci àddunaam dem ba ci lu bëri am jaar-jaar yu metti voilà loolu aussi man tamit ma am jaar-jaar boo xamante ne mooy loolu am passé am tout donc waaw ma ma xam ni que lii soxla woon naa ko donc euh, peut-être aw ko mais tey yàlla may na ma tey voilà ma am opportunité pour waxtaan ak ñu bëri à travers TikTok donc ma ne pourquoi pas donc du ma utiliser lii pour mën a lancer des messages mën a conseiller mën a taxawu ñu bëri loolu moo tax ma lancer wu ci TikTok bi soxna Eva. léegi yow gis nañ yaa ngi si TikTok bi léegi est-ce que yow. loolu noonu nan la def sa jàng bi pénaliser wu ko din paax wala yow est-ce que say parents d'accord nañ si nga dem a dem a dem ba nekk si TikTok ba adduna mun naa xam ne adduna bi ñëpp lay suivre. waa loolu nag euh, bon dëgg la c'est vrai que TikTok bi dafay xaw a jël sama temps. bon vidéo y bon taxu ko garaaw noonu trop mais surtout wàllu coaching privé bi c'est vrai day jël sama temps mais bon lépp organisation la laajte parce que damay liggéey sant yàlla te aussi damay jàng aussi sant yàlla mais tamit TikTok bi aussi dama koy jox temps bi organisation la nag c'est vrai que waaw temps bi moom. dalay xooj mais quand même j'arrive à tout faire si organisation ak passion bi ma ci am parce que lu ma bëgg la façon bu nekk laay jànkontreel ci TikTok bi histoire bu nekk laay jànkontreel donc tu es au cœur voilà des réalités sociales ce qui fait que vraiment passion la gëm-gëm la mbëggeel bi ma ci am peut-être moo tax ma mën a def lépp daal waaw en même temps. par jàng beeg TikTok bi dani mu ngi si lan. à part jàng beeg TikTok bi daani mi ngi si bind mi aussi voilà damay bind tamit lii nii ngeen di gis nii nii ci suuf nii sama livre la voilà man maa ko bind euh, ñi ko édité mooy la maison euh, d'édition L'Harmattan donc euh, samedi ah voilà récemment nii rek la génn ni c'est disponible même si laa nekk nii donc voilà à loolu maa ngi fi maa ngi tamit waaw ci ay business maa ngi ci lépp daal dani moom bàyyiwul dara léegi yow ñu gis nga bind livre nekk benn étudiant bu bind livre livre bu tudd le les rêves. les rêves d'une passion. forcenée pourquoi nga bind lool nga jël titre boobu. waaw les revers d'une passion forcenée mooy comme li ma la wax rek xam nga ku nekk am na jaar-jaar. voilà man yàlla dafa def bon am naa jaar-jaar comme ñu bëri nu amee jaar-jaar bien vrai que jeune la mais voilà am na yu bëri yoo xamante ne àdduna won na ma ko. moo tax ma bind livre bi pour juste dire aux jeunes que tout est possible parce que boo gisee jeune bu mel ni man tey bind livre rek nga war a xam ni lu ne c'est possible nga gis jeune bu mel ni man tey réussir tey ci TikTok bi ba di conseiller même ay mariés ñoo xamante ne def nañ plus de dix ans de mariage donc nga xamante ne lépp ngëm-ngëm la livre bi nag day wax lépp ci àdduna trahison amour bonheur lépp lay wax day soññe tamit parce que boo ko liiree di ci gisa sa bopp di ci jàngee àdduna di nga xam ni que tout est possible dans la vie loolu moo tax ma bind ko pour encourager soñe ñu bëri ñoo xamante ne vraiment su may nawle lañ su may mag lañ su ma lañ su may rakk lañ aussi loolu moo tax léegi kan moo la jàppale si livre bi ak ñaata temps bind livre nga toog di xalaat di bind si parce que bind livre xam nga ne neexul te métti na lool yow ñaata temps doon toog avec TikTok bay jàng ba nga boole lépp ba bind livre loolu nan la ban yëg si waaw livre bi nag ba ma koy bind en fait def naa ci à peu lu yàggul dara ba ma koy bind ay un yooyu mais histoire yu ma ciy nettali yàgg na trop d'accord yàgg na trop TikTok bi yàggul yàggul noonu. voilà yàggul noonu yàlla moo def rek waa mu réussir peut-être li may wax aussi neex nit ñi voilà ba mu yegg tey jii nii fu mu yegg nii tey mais lu ci gën am solo livre bi moom ba ma ko bindee yàggul te ki ma ci jàppale aussi mën naa ne ñaari nit la. waaw ki ñuy wax euh, Robert Gana juuf di sama mag di sama nijaay jàppale na ma si bu baax a baax ak ki ñuy wax le colonel Pape Djic jam Diop financièrement ak lépp taxawoon na ma boo waral livre bi réussir ak waa Harmattan ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko publier ñoo ko éditer taxaw nañ ma si bu baax a baax yéeg ci taxawu bi moom lu ma am tey jii moom la sama ndey ji mat leen nduxa seen di ko santaale di ko gërëmaale waaw lépp tey ji nii moom la éducation bi ak suma baay Ibrahima Gueye vraiment lépp ñoom la ñoo ci participer ba ba lii nii yëpp war a mën a am ni tey. Euh, dani ñu mën ñu laaj la lan moo la gën a neex ci àdduna lan moo la gën a neex ci sa àdduna. li ma gën a neex ci suma àdduna mooy ni que tey voilà mooy. Euh, euh, <laughs> non waxal jarul ngay nëbbu. non du ma ko nëbb dama koy wax parce que ñu bëri xamuñu ko ay eh, comme que direct laa nekk aussi mooy lool voilà Dan Abraham Jacques sama turu baptême la mais man sama tur euh, bi bi ma juddoo Massamba Sène la donc dama tuub nekk chrétien loolu moo ma gën a neex ci suma àdduna le fait que vraiment ma accepté voilà Jésus comme sama sauveur nekk chrétien loolu moo ma gën a neex suma àdduna. la gën a nakari ci sa àdduna. li ma gën a. <laughs> bul dee del bàyyi wax ak man non non déedéet waxal rek. li ma gën a naqari ci suma àdduna ah. bu mën na bu waxal rek yow. baal noonu rek soxna Eva. déedéet waxal voilà. baal noonu amul solo. waxal rek dafa kii da laa touché non waxal rek mais waxal waxal rek parce que say fans yi ñi lay seetaan bëgg nañ xam kan mooy Dany réellement. bon. Euh, touché na la may waxal rek. non garaawul bàyyi ma bàyyi noonu rek yàlla baax na en tout cas. Ah, boo waxee li la gën a neex da ngay wax lii la gën a nakari waxal. bon gën a nakari ah loolu de dara en fait du dara sant yàlla rek sant yàlla vraiment sant yàlla bu baax a baax bàyyil noonu rek. nangoo wax daal. yii noonu c'est bon. non da ngay wax émission bi da ngay wax bala duñ continuer émission da ngay wax yow la gën a nakari la gën a métti ci sa àdduna. te ku la bàyyi nga forcé tamit bon juste que j'ai mon meilleur ami ah voilà suma xarit suma doomu ndey suma lépp la voilà c'est bon du ma mën a nag dugg ci détails yi mais c'est juste que instant yi nii voilà neexootuñu maag moom et j'avoue qu'il me manque beaucoup voilà il est en mi ngi si jaam maa ngi koy ñaanal yàlla mais c'est mon meilleur ami voilà loolu noonu bokk na ci li ma gën a naqari ma xam ni mbiru àdduna ak affaire seytaane rek a dugg suñu diggante. kooku nu mu tudd. voilà juste pour vous dire que. <laughs> non fu tudd nu tudd ñëw ngeen ñu jubóole. wóori ko non <laughs> t'inquiète nañ bàyyi noonu en tout cas loolu pour juste vous dire que àdduna waaw du ñàkk xam nga réeroo genre yooyu noonu mais nit ki ak nu mu mënti demee seere ko lu baax nekk na ku baax si man vraiment j'avoue voilà donc tey bu demee tey ba waaw ay affaire dugg ci xam naa tôt ou aussi dina neex mais loolu actuellement ni bokk na ci lu ma gën a naqari waaw parce que sama lépp la en fait. Mhm. léegi Dany il est en couple ou quoi. non tamit non baal man may wax ak yow de. baal yooyu noonu. Dany télé nga jàkkaarloo. baal noonu tamit xam nga coach xam nga da ma invité en tant que coach. et le coach. en tant que personne en tant que personne laa la wax Dany. la ah, en tant que coach moo tax nga invité. déedéet bu laal coach coach bi ne ma dani en tant que dani. parce que dégg naa faa ay nga ne du faa ay dara léegi danga may wax. faa ay dara bi bàyyi ma laajte yow fan nga déggee faa ay dara. fii Sénégal la de. non faa ay dara bi lool tamit doy na loolu ay rumeur la. waaw ay rumeur la waaye léegi dani il est en couple ou pas. bon parfois de temps en temps rarement tout le temps toujours ba nii nii. dani. <laughs> non baal question. dani tu es un couple ou question bi ñëw na beneen question ñëw boobu. ah da ngay ban xale jigéen ñi commencé di wax. non du loolu du loolu sax nañ bàyyi noonu rek. ah waaw. ba ñi bëgg ba bu nu demee daal ba war a def ba ba war a def farata. waaw su boobaa dinañ ko waaw dinañ ko tas ñëpp dégg ko waaw incha allah. te maanaam doo wax da Sénégal ñi lay seetaan doo leen wax kan moo fi nekk. Sénégal bàyyi leen noonu rek ba dani di takk yàggatul dara ma takk. kon maanaam yaa ngi ci relation bu sérieux. est-ce que doo ma bàyyi. ah man ki du ma la bàyyi dama lay laaj rek <laughs> dani li ngay wax ci TikTok bi damaa bëgg a xam est loolu ngay dund réellement man looloo ma jaaxal. waaw li may wax ci TikTok bi un dama ko gëm deux ndax dama koy dund ou pas bon damay wax ci mariage dundu ma mariage ah mais gëm naa ni tey jigéen dañ ko war a respecter. gëm naa ne tamit nit ki boo nekkee ak moom en relation da ko war fonk jox ko temps jox ko léppam. man xam lu jaaxal yow dali nit aussi warul hypocrite en fait. waaw dama jàpp ni daal nit waruloo ko perte loo temps en fait voilà kanta à dani nag nit kese la nit la buy juum nit la tamit mooy lool mais en tout cas ñi ngi góorgóorlu ay ndaw lañ ñi ngi góorgóorlu di def suñu kéemtulaay kattan pour loo xamante ne rek ñu mën a tegu ci yoon bu baax bi waaw di di ci góorgóorlu bu baax a baax donc loolu la quoi. dama dégg dama faral di dégg ñi naan ñi seegul ñooy conseil ñi sëy te yow man dama gis chaque fois da ngay conseil ñi sëyagul ñi sëy ñi nekk ci néegu sëy yow yaa leen di conseil te yow amagoo jabar amagoo dara dani yow dani ñame nga yàlla de am ga fit de. waaw mais yow dama lay laajte benn mbir rek ñi ñuy wax ci yàlla est-ce que gis yàlla imam bi xutba vendredi dégg dafa gis yàlla te mi ngi wax ci yàlla d'accord euh, prêtre bi wax dimanche gisul yàlla te mi ngi wax ci yàlla est-ce gis yàlla. te ñu ngi waar ci yàlla. ko en couple sax ka te duñu ko nëbb. ah non de takkuma jabar de en tout cas loolu la rek bon peut-être voilà expérience la tamit bu ñu am quoi chance la bi ñu am boo xamante ne dañ nekk ci Sénégal même boo dundul yenn yi sax da nga koy gis et yàlla tamit may ñu tamit ñuy xalaat di déglu tamit aussi peut-être loolu moo tax ñu am sañ-sañ ak fitu wax ci lii nii ba tey ñu ku ci nekk rek di ci gis sa bopp te aussi waxuma tamit ci couple kese damay wax aussi ci développement personnel. ah damay wax ci développement personnel comment regagner la confiance en soi comment retrouver sa joie de vivre comment investir yëpp dama ciy wax ci start-up voilà yooyu yëpp dama ci wax du couple kese de. Mm-hmm. couple kese daal. non non du couple kese damay wax ci yooyu yëpp damay coacher ci yooyu yëpp. léegi Dany nga wax ci liy def liy lëmb réew mi ak li ce qui est le buzz actuel parce que comme say morom tiktokeur lañ ndeyloo xam nga ndeyloo daanam xam daan xam na xam naa ne xam nga ndéem. waaw waaw dina ma xaw a touché tuuti. dina la xaw a touché tuuti mais bu mu jëm kaw. léegi yow ñu gis Ndeye Lo ak Pawlish Pawlish dem demandé ko euh, Samy tu vois après defal ko ba bague or yow léegi couple ñoom ñaar seen couple bi nan nga ko gisee yow en tant que tiktoker. waaw loolu moom il faut comprendre que voilà y a le milieu showbiz. d' accord milieu showbiz bi moo koy laajte y a des réalités yoo xamante ne voilà duñ ko mën a parce que. pour ñu nuy seetaan la quoi am na yoo xamante ne voilà pour ature vue la xam nga dañuy nañ ko nañ ko tënkagum daal ci ci cadre showbiz daal. waaw nañ ko tënk foofu bañ ko jàppee dëggantaan daal pour le moment rek fa mën a yem daal ñu seetaan parce que aussi pour man lool mooy neexal le milieu showbiz parce que tey boo duggee tey yor sa connexion dugg TikTok gisoo genre yooyu xam nga genre yooyu moo koy neexal genre ñoom ndeyloo ñëw dugg ñoom Pawlish dugg ñeneen ak ñeneen ñëw dugg xam nga ñii di reeloo gars yi fii ñii di wax lu am importance fi pour man loolu daal moo yor milieu showbiz loolu moo yor TikTok moo tax TikTok neex moo tax ku si nekk di gis sa bopp waaw loolu yooyu moom da si baax moom ndeyloo di ko nuyu di nuyu Pawlish waaw di bëggee tiktokeur yëpp waaw ku ci nekk rek loo mën a def côté boo nekk daal na ànd ak respect rek ñu respecté sénégalais yi jox leen cër voilà ci côté comédie coaching lépp mu lu mu mënti doon rek big up à tous les tiktokeurs et à tous les euh, tiktokeuses. Euh, ñu gis am na benn sëriñ bu génn keroog wax ci affaire ci ga xale yi tiktok mu ne euh, mooy deewu mbay sapar sapar bi keroog ak yeneen yeneen tiktokeur ak yeneen ñi xamante ne ay célébrité lañ léegi mu ne comme ku amul ñaan comme bu bu amul ñaan nekk si TikTok bi doo gaaw a gudd fan léegi loolu noonu bi nga ko déggee ban ban yëg nga si am. bon honnêtement touché wu ma voilà. lu tax euh, yëgalu ma ko sax sama yaram parce que dama jàpp ni nit ku nekk rek ñaan moom ku mu nekk ñaanu ndey ñaanu bàyyi ku si nekk rek si ñun yàllaa jiitu lépp daal. te mbiru dee ak dund moom comme que ba ñuy ñëw waaw newuñu dañu bëgg a ñëw waaw ba ñu ñëwee tamit tañu euh, tànnuñu ndey tànnuñu baay dañu ñëw rek gis ndey gis baay ak yooyu yëpp euh, dee tamit ala kulli aalin mooy loolu waa man moom heure bu mu nekk rek voilà bu mu waaw pare naa daal waaw su may mbir moom comme ni ma leen ko waxee rek dama nekk nit koo xamante ne tamit malgré samay défaut malgré lépp ku gëm yàlla laa tamit ku yaakaar Yeesu Krista la ba tax heure bu mu ñëw rek ça que mu nekk TikTok et yooyu yooyu moom ay ay mbiru kii la rek ay mbiru wax la rek comme ni ma leen ko waxee il faut ñu comprendre que visibilité dina yóbbee nit lu ne. muy wax lu ne taxaw di wax mais deewu nit ak dundu nit moom loolu suñu borom moo ko yor ak wërsëku nit loolu suñu borom la nu mu ñëwee baax na ñun ñoo décider dem ci TikTok. voilà tey jii nii suñu yaay bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu da ngay gis sax koo xamante ne xamula sax gis la TikTok li ngay def neex ko rek mu ñaanal la donc euh, bu fekkee <laughs> TikTok day raye moom kon moom xam naa ne moom kenn du des en tout cas daal choisir nañ ko def lu ñu ci fekk ñu jël. di sant yàlla bu baax heure bu mu doon moom xalaa ku TikTok ou pas TikTok ñëppay dee bu fekkee yonent yeeg xut bu zamaan yeeg waliwu yëppay dem rawatina ñun ñii nga xamante ne ay nit yu xeebu leen dundu dara donc TikTok bi moom du si tous waaw gars dañuy wax noonu rek yooyu moom ay man dama ko yëgalu ma ko sama yaram daal ku si nekk daal respectel say parents say parents euh, ñaanal la respectel waaw jéemal def le tout daal respecter nit ñi parce que sénégalais bu nekk moo lay suivre sur TikTok nit mën na la bañ a xam sax dugg ci néeg julli wala mu dem église ñaanal la voilà ba suñu borom euh, defar say mbir daal moo tax ay yooyu moom voilà ku gëm yàlla dëgg-dëgg ku am iman dëgg gëm yàlla dëgg vraiment yooyu doo ko du la du la du la du la du la du la traversé daal man moom yëgalu ma ko sama yaram moom honnêtement te dee moom ku koy ragal rek da ngaa da ngaa da ngaa da rek waaw mais dee moom képp koo xamante ne gëm nga yàlla rek war nga ni nga ni nga ni nga nangoo dund noonu nga war a nangoo tamit dee parce que ku bëgg a dugg aljana foofu nga dee waaw waaw pare na léegi lan lañ mën a xaasidane ak projet dañuy lan la. waa projet bi bon ci wàllu TikTok bi dinañ ko gën a yaatal gën ko def. Euh, su commencé ci wàllu jàng bi d'abord. wàllu jàng bi waaw waaw ngi ci ah ñi ngi ci sant yàlla bu baax baax a baax xanaa pare suñu master rek voilà déjà yàlla ja jàppale nañu que ñi ngi nekk voilà di euh, di taaba taaba voilà ñi ngi tamit ci business bi donc ci wàllu jàng bi xanaa gën a continuer waat ci jàng bi et aussi euh, jour en tout cas man daal ubbi su may loxo pour ñëpp ah. képp koo xamante ne rek voilà pare na pour liggéey ak man ci côté jàng bi côté lu mu mënti doona ah, TikTok bi côté ah, publicité promotion même même pourquoi pas télé ah même yéen sax boo leen ma jëlee <laughs> pourquoi pas. non ñun moom mënuñ la jël non ñun moom duñ la jël moom duñ jël ay tiktokeur waaye léegi côté li gis nañ nga bindi livre yo livre bi nan ku bëgg am livre bi nan nga def pour am ko donc euh, voilà donc livre bi moom ku ko bëgg am voilà mën nga ma contacter ci 76

nga jëndee ko foofu noonu foofu tamit 6500 tamit lay jaar euh, am nañ tamit yeneen projet am na tamit yeneen livre yoo xamante ne ñi ngi ñëw donc bàyyiwuñu dara soxna Eva ñu dara lépp loo xamante ne rek ndaw war na ci war a mën a nekk daal góorgóorlu si ba ñu naw ko si ñëw ànd ak moom mu jàppale nit ñi jàppale ñëpp ñun moom ñu ngi si moom vraiment man moom ma limite moom voilà awuma limite lépp loo xamante ne rek xel may na ma ko rek euh, mënees naa ko tamit te xam naa ne bu ma ci góorgóorloo tamit bu ma ci nit ñi jàppalee rek ma réussir soxna Eva maa ngi si voilà. léegi ñu bàyyi la sa mot de la fin daa mel ni temps xoj nañu ñu bàyyi la nga tàggatoo suñu bokk internet yi seetaan Dakar Midi. waa xanaa sant nag sant suma yaay bu baax a baax a baax a baax comme ni ma la ko waxee rek euh, lépp tey moom la waaw ba tax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant ñëpp ñoo xamante ne aujourd'hui tey jii nii voilà nawloo nañ ma bëgg nañ ma parce que message ak appel façon bu ne laay jot waaw ñu la bëgg ñoo xamante ne nga jaral leen lu ne vraiment. waaw ba yow mii nga xamante ne ndeysaan kenn gënu la waaw yen waa dakaar mi midi tamit euh, di leen di sant di leen di gërëm voilà parce que invitation bi rafet na. waaw bëri na ñu fi nekk mais taneef bi nekk si man vraiment ba tax tey jii ngeen may ma occasion bi ma wax ak Sénégal wax ak àdduna mënuma leneen tamit lu leen di lu dul di leen di sant di sant euh, waaw sama dëkk jox na ma lépp fa laa jàngee fa laa defee lépp njëgañaaw séeréer voilà maxey gidmaanu na paax waaw vraiment kontaan naa. yow daal séeréer. la séeréer laa de séeréer laa séeréer refum de waaw séeréer pire waaw di gërëm ñëpp ah ba université mbokk étudiants yi ñëpp ku lim juum soxna Eva ku lim juum billaay walaay maa ngi gërëm ñëpp naa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp waaw vraiment. Euh, comme niñ koy faral di defee rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di nuyu sama caméraman bu ñaawul bi muy Abou Sifa nii lañ fii la ñuy yem ci émission bi nag du ma fàtte mukk di nuyu sama yaay samay sœur ak Yacine nee na ma Eva ba mu nuyul tey da lay bàyyi fii la jar bala nuyu fa ak ñoom abi sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jox dig daje prochainement ci ak beneen naanaan nee naa